ونجني وخله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفرس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مسايا رب العالمين وجل بناي بنا وافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بناي بنا علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بناي بنا الاعتداء والتقي عني كيد كل سيتداء ginnaaw bu ñu nuyoo siyaare ñaanal cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee te ñu ànd ko moom ci ndigalul alxaaji Serigne Tako Mbakke moom cheikh Mouhamadul Fadil ak rakkam di jëwriñu liggéey bi di sëriñ Habib Mbàkke moom Cheikh Mahamadou Fadal ak seen jëwriñ sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke Habibou ak sëriñ Abdou Fatah Guèye mi nga xam ne mooy président association Touba ci kanam Nourou Darayni ak mbooleem suñu kilifa yu baax yi fi toog sëriñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne moom la yàlla dogal liggéey bi sëriñ Touba jaare ko ci moom sëriñ Cheikh Mbacke Omar Cheikh Mahamadul Fadil Bousso Abdul Muttalib sëriñ Cheikh naa Mbacke Dioli ak ak ak ak ñoom ñëpp di yëkkati kàddu rek ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa di sant taalibey Serigne Touba yépp nag ci liggéey bi nga xam ne Touba ci kanam sëriñ bi woote na ko muy sëriñ Abibou ginnaaw bi yàlla dogalee xalaat bi génn sëriñ Abibou dafa waxoon ne képp koo xam ne sama yéene ak sama yëg-yëg bi ma yëg ci Serigne Touba ñoo ko bokk woo naa la ci liggéey bi liggéey bi lan la liggéey bi moo doon dëkk bii di Touba di dëkkub Serigne Touba mu sancal ko boppam sunu borom may ko fi loo xam ne nekkul ci benn dëkk ci kaw suuf ci barke ak teraanga ak jaamu yàlla gu sax ak tuxoo boo xam ne lépp lu safaanu tuxoo na ci dëkk bi sëriñ bi ñaanoon boroomam lu baree bari ci dëkk bi ngir sunu boroom fu adduna toll mu tollale fi dëkk bi di Touba te du juuyoo lislaam ci genn wàll woote sëñ Touba boobu nag tax na Touba diggante 1888 bi ko sëriñ bi sancee ba 2019 bi ñu nekk Touba yokk lool ci wàll yépp ngir ñépp woote sëriñ Touba bi tax na ñu gental seen dëkki maam fenn fu nekk nit bàyyi lam fa amoon ci ay mbokk alal suuf ñëw dëkk si ak Serigne Touba loolu tax na tubaa yaatu lool yaatu gi mu yaatu bari ñu ko dëkkee yóbbe ko mu bari lool lu mu soxla loolu tax na mu mel ne bi Touba nekkee ci biir Sénégal te état Sénégal war a saytu Touba ñi muy saytoo yeneen dëkk yépp mel na ne màggu Touba ni mu gaawee ñi ko dëkkee ni ñu baree tax na mu raw képp koo xam ne sa warteef dafa aju ci dëkk bi ngir nga war koo topp doom mu mel ne ci euh, misaal Touba gaaw gi mu gaaw ni muy dëkkee tax na mu raw état bi ci ni mu ko waroon topp doom gaaw gu mu gaaw nu muy yokke tax na mu raw xalifa yi fi jaar yépp ba mënuñoo dab la war ci dëkk bi loole nag yóbbe dëkk bi mu mel ne bu ñuy xool ni surface bi toll ak ni population bi toll li war ci ñoom daf fee manqué lool loolu la Touba ci kanam yëg ba tax bi mu juddoo mu fas yéene li waroon état waroon xalifa yëpp Touba ji kanam dal ci sos waaw te loolu barki dem rek dégg nañu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal mu wax ne Touba ji kanam moom weesu na ci njort léegi yaqin la ci am yàqin googu itam wax na ne Touba ji kanam man naa dem ba lépp lu waroon état ci dëkk war xalifa ci dëkk Touba ji kanam mën koo def loolu nag mooy bëgg-bëgg Touba ji kanam ginnaaw dëkk bi nag ni mu toll tax na mu ñàkk ba barabu fajukaay ñàkk ay yoon ñàkk ak leer ñàkk sécurité ñàkk yu bare bare yoo xam ne bu dëkk bi yokkuwul woon nii konoon retard bi mu am ci yooyu yëpp du ko am waaye nag jàpp nañ ne solution bi du toog rek wax ne Touba ni muy màgg dafa gaaw ba tax ñu ne nañu bàyyee xalifa bi la ko war wala état bi ko war déedéet ndax Touba li muy yaatu yaatu mètre carré boo teg sa tànk am na ko ko moom am na koo xam ne moo ko moom ginnaaw bi mu nekkee moom la sëñ Touba ginnaaw nag lenn ne am na ko ko moom day mel na ñi dëkk dëkk bi li ñu moom bu leen jaralee engagement bi sëñ Habib bu woote te mooy weer bu jot kenn ku ne jaayanteeg sëñ Touba ci ñaar téeméer kon mu dëkk bi gaaw gaaw liñ ciy def mën nañoo dem sax ba bu dëkk bi fu mu toll nga xam ne dinañ dem ba fu ñu sancagul ñu mën faa yóbbu ay tëli fu ñu ñu mën faa yóbbu courant loolu lépp dafa dugg ci biir bëgg-bëgg Tuubaa ci kanam kon loolu benn wàll rek la boo xam ne bi ñu wootee liggéey bii ñi ngi sant murit yi Sëriñ Tuubaa yëpp di sant jullit ñëpp ndax bi ñu wootee ni ñu wuysee dafa tegtale ne kenn ku ne ci murit yi amoon nga loo ëmboon ci sa xol muy yéene ju jëm ci Touba loolu tax na Touba ji tollu ci ñaari at rekk ak ay weer mën a def lii mu def ci Touba muy lu baree bari bëgg-bëgg boobu nga xam ne murit yi wuy nañ ko ñi ngi ci sant ñëpp ndax lu fi am rek dafa fekk ne murid yi ñoo nangoo wuy si te lañ leen xame woon ba yoonu murid yi sa ba léegi melokaanu murid mooy nangoo sonn ak àttana joxe nangoo sonn ak attana joxe lépp lu am ci yoonu murid looloo ko fi indi ndax yoonu murid baaxawul a xaar kenn ci lenn Serigne Saliou daan na ko wax ne état bi li ko war ci dëkk bi duñ ko ko laaj duñ ko joxaar loolu mel na ne moo yóbbu fii dëkk bi kon bu yàlla dogalee Touba ji kanam sosu ci kaw ndigalu Cheikh Ahmad sëñ Sidil Muxtaar yàlla na ko yàlla dolli ay leer jaar ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mii nga xam ne moom dëgëralaat na tuubaa ci kanam ci bokk gi mu ci bokk boole ci boppam ak soññee yi mu ciy def ak yaakaaram ji mu ci feeñal waaye ginnaaw yaakaar yaakaari sëñ Muntaxa ak ay jëfam ak ay ñaanam taalibe yi desuñu ginnaaw ci liggéey bi bu ñuy wax taalibe yi itam bu ma njëkkee soxna yi ñiy woyee jigéen ñi gàcce ngalaama kenn mënu leen ci liggéey bi te loolu bu ñu indiwul dara ci misaal ci seeni jëf yu weesu bu ñu gisee tey seen teewaay yaakaar naa ne mbooloo mi bu doon juróom lañ ko xaaj mën nañoo wax ne ñett yépp ay soxna lañ te noonu ñu bëree ci seen teewaay noonu la ñu bëree ci seen i jëf ak lépp loo xam ne Touba Kanam daf koy woote jigéen ñi kenn mënu leen ci kon sëriñ bi mi ngi leen sant ci wuy si gi ngeen wuy si ak rafet gi ngeen rafet ni ngeen wuy ak jëf yi nga xam ne da ngeen koo dëkkee lu jiitu bis bii ba tax na tey jii lii ñu fi dajale li ci ëpp ci seeni jëf la bàyyi ko waaye nag ginnaaw catu googu tam ñu soññaat leen ci li jëm ci sunu kanam muy ni ngeen nekke woon ci jamono bu jot ci gox yëpp ni ki noonu itam góor yàlla yi ñu ngi leen di sant euh, di gërëm ñëpp ci kenn ku ne fa nga féere ci Touba ci kanam ñi lay sant bu baax rawatina waa diaspora yi ñoom itam kenn du leen fàtte ndax ñu bëree bari sori nañu lool te itam yu mel nii yàgg na fee jaar ñu yàgg cee ñàkk seen xaalis te fa muy mujje itam daanaka rek fa léeb di mujje la daan mujje waaye terewul bi Touba Ca Kanam ñëwee ñoom ñëpp ñu yeesalaat ci seeni yaakaar seen bëgg-bëgg ba tax ñu jàppe ci ñi ñu ci jàppe kon tam diaspora ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon mu mel ne li ñu fi daj la tey Cheikh Mouhamadul Mourtada mu Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne moo jiite social bi dina dellu si moom wax lu jëm ci wàllu social bi dañ doon wax rek ci turu kilifa yi ngir wane ne Touba ci kanam ñu ngi ciy tàllalaat loxo mbooleem murit yépp di wax ne yéene ji jenn rek la ndax tey lii ñu amal tey muy social moo dem tabax hôpital yi wala defal ay tër yi wala yokk làmp yi ci mbedd mi ñoo yem rek ndax fu ab làmp war a nekk dañoo jàpp ne bu fu Sëriñ Tuubaa nekkoon loola moo koy taxawee ndax bi mu sañcee dëkk bi di Tuubaa juróom-ñaari at la fi dëkk waaye juróom-ñaari at yooyu kenn mësul dégg ñu ne kii mooy chef de village bi wala chef de quartier bi moom Sëriñ Tuubaa moo yoraloon dëkk bii boppam bi mu sancee dëkk bii di Tuubaa Daaru Xuddoos gi moo ko sancal boppam sanc daaru rahman gële sanc daaru minam sanc daaru alimul xabir fenn fu ci ne lu fa nekk ci ndigalam nañ ko fa defee ab bant rek kenn mosu koo ñemee samp ci lu dul ndigalam lépp lu mas a romb itam ñu def ko ci dëkk bi te jaaduwul moo koy lijjanti bañ def ko ne mooy nañ ko war a defee kon dëkk bi sëriñ bi noonu la ko téye woon boppam ginnaaw sëriñ bi itam dañoo jàpp ne képp ku fi nekkal sëñ baa dëkk boobu ni ko sëriñ bi yore woon noonu nga ko war a yore Touba ji bi itam bi mu ñëwee dafa dugg ci biir lool rek ba tax na ñi bàyyi seeni i kër bàyyi seen dëkk ñëw dëkk seeg Serigne Touba yàlla dogal ñuy ay néew ju doole Touba ji kanam dafa jàpp ne Serigne Saliou dara wax ne dëkk bii atteb kër la yor kër nag ku fa ñëw borom kër gi moo la war a jox nga lekk borom kër gi moo la war a jox nga naan daal di wax ne Touba lii dal dëkk yépp daf koo dal. muy li ñuy wax ay sancaan daf bari te yeneen dëkk yi am lu ñu teree Touba ndax yeneen dëkk yi ñaare bu fa nit ñëwee liggéey dana ko faral di yomb ndax liggéeyukaay dafay bari bu dee Touba nag dafa bariwul ay liggéeykaay te ña ñëw ñu baree bari dañuy bàyyi seen lépp bu ñuy ñëw ñaare bu ñu ñëwee ñàkk lu ñu liggéeyee dafay tax ñu nekk ci coono bu méttee métti loolu nag moo tax Touba Ca Kanam at mu jot mu amal bis bii dajale ci ci ay famille lu ëpp ñetti téeméer ngir ànd ak ñoom li nga xam ne moom la ñu nekkee beneen bi itam mooy lu may nekk tabaski korite ak màggal muy bis yi nga xam ne yëpp képp kuy dund boo ci egsee bëgg nga lu bon bon sa dund sensé tuuti te bu boobaa da ko yéene te doo ko man Touba ci kanam itam dafa jàpp ne ni muy defaree ay poste de santé ni muy defaree ay tëli noonu la war a taxawoo njaboot googu ba bis yooyu duñ ci xalaat dara kon alhamdulilah ñi ngi sant bu baax a baax ci woote gi ngeen wuy si gi ngeen wuy si woote bi ak nangu gi nga xam ne nangu ngeen koo sax ci Touba Touba ci kanam kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox euh, Cheikh Mourtada waaye balaa boobu itam ñu delluwaat di santaat ak a ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride ñuy dagaan yàlla di ko ñaan ci barkeb Sëriñ Touba mu bàyyil ñu ko fi may ko ak wér lool sàmm ko ba li mu yéene lépp mu def ko ni mu ko bëggee ndax moom yàlla dafa dogal mbooloo mii di tubaa ci kanam bi mu juddoo rek te booba sax nekkagul xalif général de Mouride da koo jàppe woon mboolem boppam bañ njëkkee dem ci moom moom day moo ñu njëkkoon wax ne leen lii ngeen di tàmbali dafay lu am solo waaye pësteef ak dogu akuk jot moo koy doxal loolee nag moom ba mu ko waxee dafa mel ne pësteef ba ak dogu ga moom moo ko téel boppam ndax kilifay Touba ci kanam yii lu ñu jàmbaare jàmbaare lu ñu sonn sonn ci liggéey bi waxtu wu ñu delloo ci kanamu Cheikh Mahamadul Muntaxa bu ñu toogee ci moom dana yeesalaat yaakaaram ak pas-pasam ci liggéey bi ba lu waaye doon sonn da ko xeeb jaajuwaat kon ñu ngi koy ñaanal baax waaye itam di ñaan di cant googu itam ak ngërëm li dañ koy jaare rek ci Serigne Xaadim Diop mi nga xam ne moo fi ñëw ci aw turam tey it di yëkkati kàddu ci ci ci làmmiñam ñu ngi koy yóbbante ci turu suñu kilifa yi turu Alaaji Serigne Tàkko Serigne Abibou Cheikh Abdoulahat Abibou di ko wax ne mbooloom Touba ci kanam day sant nañ bu baax a baax te xam nañ ni mu jàppe mbooloo mi xam nañ ni mu leen jàppe xam nañ fi mu leen féete nga wax ko itam ne ko liggéey bii Touba ci kanam moo ko def waaye moom la ko defal ndax xam nañ ne lii ñuy def tey moom sëñ Muntaxa yéene boppam la ndax kenn ku ne xam ne ne yërmaane yërmaane ji mu am ci taalibe yi kon lii Touba ci kanam di def na jàpp ne moom lañ koy defal ñu ngi ñaan itam moom mi nga xam ne moo fi sëñ tubaa mu nangul ñu jëf jooju te làqal ñu ko foo xam ne yàq du fa egg li may daane rek kon mooy Euh, ginnaaw bi ñu yëkkatee ay kàddu ci turu sunu kilifa yi mu jëm ci mbooloo mi ci sant leen ak gërëm leen dañuy yëkkatewaat nag ay kàddu jëme ko ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu yàlla booleel ci sant leen ak gërëm leen ak ñaanal leen yàlla saxal leen ci kanam mbooloo mi loolu sax du loo xam ne xañ na lu ñuy bëgg la waaye itam mënul ñàkk ñu jëme ko ci ñoom ndax ànd bi mi ngi bëgg a yàgg te bi ñuy daje ñun Touba kanam ñoo bokkoon lislaam ñoo bokkoon yoonu murit waaye nag ay dox daje rek lañ woon kenn xamul woon kan mooy kan yàlla mi dara tawut mu xool li ko soob muy xalaat bu rafet boo xam ne ndekete mën naa jur lii lépp mu jaare ko ci koo xam ne sax tey bu ñu tudd menace naa wax ne manis na ko bañ a tudd muy sëñ fàllu njaay mi toog mu mel ne loolu yàlla da koy faral ay mbiram di ko jaare ci noonu da koy jaare ci foo xam ne tey bu fa jaaree ba màgg ba toll nii kenn du ne nii ne waroon a demee ndax xañ na bu ko jaarale woon ci xalifa général de Mouride dañ naan lii rek moo fi baaxoo am bu ko jaarale woon ci geneen kilifa dañ naan lii moo fi baaxoo am waaye nag mu xool ab taalibe boo xam ne gisul boppam ci dara lu dul ne ab taalibe Sëñ Tuubaa la mu jaare ci moom lu rëy lii mu ba lépp mën cee judd alhamdulilahi rabil alamin loola bi mu amee Cheikh Mouhamadul Habib mii ñëw indi xalaat bi nga xam ne dafa mel ne dafa dolliku ci liggéey bi ngir mottali ko muy projet ñaari millions yi kenn ku ne weer wu jot nga jël nga jël ñaar téeméer yi nga xam ne ñaar téeméer yi nga xam ne du la tey joxe dépense du la tey siyaare sa sëriñ du la teree bokk ci daayira bi nga bokkoon nga jaayante ko sëñ tubaa ci weer wu jot nga defal ko ko ci dëkkam bii nga defal ko ko ci dëkkam bi nga xam ne loo ci def yow yaa koy jariñoo waat bu tali paree sëriñ tubaa moom doxul ci ay tali bu làmp yi leeree niitalu niitalu sëñ tubaa ñun lay niital bu ñu tabaxee ay hôpital sëriñ bi fajuwu ci ñun ñoo ci faju te tërewul ñaar téeméer yañ ko jox ëllëg yow xiyaam boo dajee ak moom da xam ne la sëñ tubaa waxoon ci gànnaar ne maa ngi leen di wax loo xam ne ndamu taxul ma koy wax waaye képp kuy jëf mooy la ma say jëf sànq nga ko kon nag loolu bi ko sëriñ bi wootee boobaak léegi ñaari at la yu teg ay weer sunu kilifa yu baax yi nekk sunu kanam alaaji sëriñ Tàkko sëriñ Abdoulahad Abibu sëriñ Abibu sëriñ Seex Mbàkke Omar ñoom ñëpp mënuma leen a lim mbooloo mi di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax dafa am mbooloo yi fi bari woon yu jaar yu bari yu fi jaaroon ñun Sénégal yi yëpp ak murid yëpp dañ doon wax ne Touba ci kanam ay dóor rek la jëmul fenn moom mbooloo yi fi jaaroon rek ñoo yem lool rek lañ daan wax am na sax ñoo xam ne dañ doon wax ne ànd nañ waaye ab xaalis moo fi amagul waaye bu fi ab xaalis amee léegi ñu def ni mbooloo yu njëkk yi ah alhamdulilah ñun de bi ñu àndee ba léegi bis bu set laa wax bis bu set Touba ji kanam xaalisam di gën a bari mbooloo mi di gën a booloo ña féete suuf di gën a nangoo nekk ay taalibe ña féete kaw itam di ñu gën a nangoo nekk ay taalibe ndax ñoo ngi nii waaye wanuñu ñu benn yoon ak moomeel ci mbooloo mi mu wanuñu ñu itam benn sañ-sañ. sëriñ tubaa mooy seen maam waaye loolu wan nañu ko mbooloo mi lenn rek lañu wan mbooloo mi mooy pas-pas bu wér ci ànd ak ñoom wommat leen ba liggéey sëriñ tubaab bi ñoŋ ba ni ko sëriñ tubaa bi doon ñu amee noonu li ma wax ci njëlbeen gi ne kenn xamantewul woon dañoo dox daje dox daje googu ab seere la ci ànd bi bu egsee ba tey ndax dox daje dong boo ci naree ànd ak nit ñaari at mu yàgg la loo at ñun wala lu dee wala lu dul yoon balaa man ñaari nga bàyyi ko fa demaat ca leneen kon bu ñu leen nangoo topp ba léegi dafa fekk ne fa sëñ tubaab bëgg ku fa teg ab tànkam fa sëñ tubaa bëgg ku fa tegloo ab taalibi ab tànkam foofee la ñu teg la seen tànk muy topp ndigal te bañ a topp sa bakkan sëñ may jax dafa waxoon ne bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan yii yaari yëf day tax bon ku ko bëggul du dem kanam kon ñi ngi leen di sant ñoom bu baax a baax di leen gën a yaakaaraat di leen gën a joxaat suñu bopp ci liggéey bi di gën a feddali laxasaay gi te loolu maa ngi koy wax ci turu Touba ci kanam ak fu mu mën a nekk ci àdduna ne leen sëñ Abibu sëñ Alaaji Sëriñ Tàkko Cheikh Abdoulahad Abibu mbooloo bi ñu ngi leen di gën a jox seen bopp di leen gën a yaakaar di gën a topp seen ginnaaw di leen gën a doyloo di leen gën a ñaan ngeen li ñu ci liggéey bii ba ni ko Sëriñ Touba bëggee ñu amee ko noonu yàlla na leen yàlla saxal yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla dimbali wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.